sama nijaay waaw. xam naa des na tuuti dinaa bàyyi woo. lu xew ndax lan. ah maa commencé naa magal. mënatuma ko mënatuma ko. góorgóorlu rek boobu bële yaa ngi gérer kenn. fi mu ne nii dafa mel ni ay may gis ay fer ci sama kanam. Hmm. ne koor gee feresu di ma def yu sew yoo xam ni. su ma xiifee ay ñaq yu sew ñooy génn ci sama yaram. sa yooyu ngay def. Oh, sama nijaay daal kenn la. Eh. Eh, maaleykum salaam. Ah, Musa gini. Musa. Ay Musa. maa ngi nii. Moussa yow doxee nga naaj foo jógee nii. dëkk ba laat jógee. Togal. mu ten? Togal. toogal mu lax teen. waaw waaw. naka waa mbëllëx. balak nga fa rek di jaay. balak ngay mbëllëx mbëllëx yi. waaw waaw ñu nga fa di mbëllëx mbëllëx yi. ba woon ah waaw tàmbalee noos. fii neex na de. ah bu naka kooros. kooros a ngi rek. Safos. Safos kay saf na moom saf na moom saf na moom. saf Safos trop sax. Mhm. koor gi moom saf na waaye ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy jéem daal. di ko maintien waaw di ko maintien. yow maa dégg yow déggal di jaay. <laughs> ànd na kii ànd cerveau la. déggal di jaay. nga xam ne loolu nga xam ne ko amal. ma ko magee laa la ma de. xel ngay waxee moom. ma ko magee laa la ma de li ngay waxee moom mi boo waxee moom naa ko. boo koy xamee. yow de sa jabar rek lay wax nga xam le moom. lii sama jabar damaa ñor. yow xamoo keneen yow. maa tey bëgg ko xamoo keneen yaa tey kay. xanaa gisoo sama jabar ni mu jongo seetaan téléphone yaa fi mujj am jonga ma. Ousmane kañ dem fee. li ak boppam bu ndaw bi. yaa ngi jàmbur lim la waxoon nga moom daa yor lu jonga ma teyoo yorul lu jonga ma. Ah. waaye cas suspect yi nag cas cas yi nag danoo war a toog nag bis bu yàlla sàkk ñi ngi nugum nugumi ci dëkk bi yi wóorut. Soxna Ndiaye lu xew mbokk yi nga xamante ni yéenay seetaan inforewmi point com tey nag ñëw nañu ànd ak yéen ci xibaar yi xamante ni dafa doy waar mooy cas communautaire bi nga xamante ni rëccee ca mbalaxteen ñëpp a ngi koy wër nag ak autorité yi waaye mënuñoo fexe ba teg ko bët képp ku ko gis nag mën nga woote ci numéro vert bii di 800 00 50 50. Moussa mii ñëwam gi bett na ah. Moussa. naam waaw Moussa yow foo jaar ba dugg ci dëkk bi laa xam. sareet laa jël de. sareet oto amul moom. waaw ah, noo def ba ñëw ndax damaa dégg ci télé bi léegi ñu am ku ñuy wax. àll bi leen jaar. benn cas communautaire boo xam ne moom lañ doon seet. Hmm. ni ko dangaa corona mu ne ko. <coughs> ah sama nijaay hmm. yow tam. Mbadou yow. Hmm? mu ni moom mën nañu xooli pexe rek borom cas communautaire bi rëcc looy wax ni Moussa ñu xool ñu koy lijjantee rek waaye ñun la cas communautaire yi ñoo ngi nii toog Moussa loolu lu la mënee dal ci ba rek mais ngay nit ñi di quarantaine ñi feebar yow avec ça léegi nga rëcc ñëw si kër gi waaw ah, ma ne bul jooy ba ñuus na de bàyyi li nga def ci jublu bëgg xam wala si bala jublu ma. déedéet bu lox loolu. fi mu toll ñun ñi ñëpp ngay teg problème. kay maa ma def la nii ndax ak walaat naa ma kott la ko rek. wal ma sa jabar. déet kooku moom bàyyi hmm, ma jooyul lu may def. bàyyi ma jooy bàyyi ma dégager jooy samay jooy sa yoon newut samay jooy. man maa moom samay jooy lu ma neex laa koy jooy. du ci sa yoon mais histoire loo xam ne koy lijjantee tamit. naa ko lijjantee ba feebar mu téye la waroo woon a daw. looy daw pour wàllu ko nit ñi. wal ma sa jabar. si néeg bi laa jëm kottu jabaram. wóor na yàlla damay kottu jabaram damay kottu jabaram.